voilà sur sa page xam naa ne. Mhm. dinañ ci daal di euh, ñëw voilà mi ngi noonu nag ñu daal di euh, ñëw ci post bi nga xam ne Ousmane Sonko def na ko sur sa page euh, Facebook mhm. di xamle wala tamit di nuyu ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofu noonu ca diaspora bi ak militant sympathisant loolu la daal di tàmbale moom Ousmane Sonko waaye tamit di leen xamle que ne ñaan yeeg kaddu yi nga xam ñu ngi koy yëkkati maanaam soutien bi nga xam ne ñoom ñu ngi koy féddali ci nga xam ne moom mooy seen leader di Ousmane Sonko ak ñaan yeeg yëpp moom mi ngi ciy jot. Euh, lépp tamit di leen remercier bu baax a baax waaye tamit di santat yàlla bu baax ak tamit di invité euh, plus que jamais ñi nga xam ni ñoom ñoo ànd ak moom ñu am benn engagement bi waaye tamit benn détermination bi ak tamit euh, solidarité ndax ñu mën a jàkkaarloog régime wala ñu mën a jàkkaarloog dictature bi nga xam ni moo fi nekk te fi dese matul sax li nga xam ne moom mooy cinq mois ba tax na sax mi ngi leen di xamal que ne la nga xam ne conseil constitutionnel may na ko mooy ci wàllum résistance ak li ni mel maanaam nga résister ak yooyu lee loolu Ousmane Sonko daal di xam ne ba tax na muy wax xam ne que ne moom fa nga xam ne euh, fa la nekk mënuta euh, résister maanaam am na méthode yoo xam ne du ko mën a def euh, lenn rek lañ ko fa may wala lenn rek la ko fa yoonu may mooy ci wàllum grève de la faim te décidé na reprendre li nga xam ne moom mooy grève de la faim bi nga xam ne defoon na ko tolloon ci trent 34 jours ndiki tey nag Ousmane Sonko mi ngi xam le que ne dafa décidé daal di reprendre li nga xam ne moom mooy grève de la faim waaye nag defu ko ngir dafa daf ko def juste pour jàppale euh, ñi nga xam ne ay euh, jigéenu patriote yi nga xam ne dañoo daal di entamé grève de la faim ba tey nekk seen huitième euh, jour te loolu tamit moom dafa bëgg a solidariser ak ñoom ñoom ñi nga xam ne la jàpp injustement que ça soit Falla Fleur ak ñeneen ñi nga xam ni ay jigéen lañ te bokk ca parti boobu di Pastef waaye tamit nekk wala pas bokk sax mais nekk ay militant wala sympathisant wu Pastef ñenn ñi nag daal di bokk ca parti boobu ñi nekk foofu noonu ca campagne Liberté 6 dañoo entamé woon Euh, grève de la faim Ousmane Sonko bëgg ànd ak ñoom euh, solidarisé ak ñoom waaye tamit ngir jàppale leen. ca boobile xeex bi nga xam ne euh, ñoom ñu ngi koy euh, def ba sax dañ leen a privé euh, ñu gis privé privé nañ leen bépp contact rawatina itamit ñu gisee ak ñi nga xam ne ñoom ñooy seen ay famille maanaam visite ak li ni mel loolu itamit waaye tamit Ousmane Sonko ne dafay entamer grève de la faim bi pour itamit contester jàpp bi nga xam ne jàpp nañ ko ko waaye tamit nañ ko bëgg a naxasalee ci élection yi nga xam ne moom la ñu daal di dëdmal maanaam lépp rek ci wàllu résistance la mais comme que ñeenti forme ba lañ koy def ñoom nag ci forme euh, grève de la faim loolu la ko yoon daal di may comme que jamono ji euh, détenu la waaye tamit ma ngay invité waat di woowaat na nga xam ni euh, ñoom la daal di àndal à ñu daal di wane li nga xam ne moom mooy détermination engagement ak persévérance ci li nga xam ne ñu ngi koy daal di def waaye tamit xam ne que ne ñii cinq presque mën nañu wax ne lu lu wàññeeku ci cinq mois moo leen daal di dese ñoom ñoom mi nga xam ne que ne ñoom eux se battent pour les cinq prochains mois maanaam ñi nga xam ñoom la ñu janoo ñoom mën naa ne cinq prochains mois yi nga xam ne ci lañ jëm ci la ñuy xeex waaye ñoom ci cinquante ans euh, yi nga xam ne ci lañ jëm ci la ñuy daal di xeex maanaam cinquante prochaines années euh, ñoom ci la ñuy daal di xeex loolu nag Ousmane Sonko aussi euh, moo ko daal di xam xamle la moo tëjee nag boobile bataaxal muy Free Sénégal Free Sonko Focus 2024 loolu la Ousmane Sonko daal di xamle tout à l'heure foofu noonu ca page Facebook am lii nag la daal di bind maanaam luñ ci mën a jàngal rek mooy ko Ousmane Sonko dafay entamé waat li nga xam ne moom mooy euh, grève de la faim bi nga xam ne defoon na ko ba juraloon ko gàllankoor ba mu waral ñu daal di ko yóbbu foofu noonu ci hôpital principal de Dakar ndiki tey mu annoncé waat que ne dafay continuer euh, wala dafay defaat li nga xam ne moom mooy grève de la faim bi ci njëkk mooy euh, solidariser ak ñi nga xam ne ay jigéenu Pastef lañ. te ñu mm-hmm. entamé grève de la faim euh, nekk seen huitième jour. beneen bi si mooy que dafay jéem a maanaam dafay contester euh, jàpp bi nga xam ne jàpp nañ ko ko et tamit niñ ko nar a naxasalee ci yi moom bañ cee bokk ak lépp rek la boole résister moom i tamit à sa à sa à sa manière et aussi résister noo xam ne noonu la ko yoon maye en tant que détenu def grève de la faim nan nga jàngatee texte bi nga xam ne Ousmane Sonko euh, bind na ko. waaw euh, mu nekk euh, test boo texte boo xam ne ñu ngi koy am à ci li nga xam ne nag mooy page bu Ousmane Sonko mu ngi xamal ni dafay sumbuwaat jëmale ci li nga xam ne nag moo di grève de fin bi nga xam ni. mu ngi ko doon amal ginnaaw intervention bu sëñ Mountakha war waraloon mu daal di koy bàyyi léegi na ndaaya boo xoolee li nga xam ne nag mooy information yi nga xam ne FRAPP mm-hmm. mu ngi koy génne en guise de communiqué que am na neuf jigéen yu nekk maison d'arrêt et de correction bu nekk fee nga xam ne mooy sa Ziguinchor jigéen ñooñu dañoo entamé li nga xam ne nag moo di grève de faim. ok Falla Fleur yaa ngi koy junj léegi sa biir wax. moom voilà moom nu war a xaar euh, délibéré am le 26 bii léegi lii moo lay war ne ni carrément Ousmane Sonko leader la. pas si li nga xam nag moo di wàllum politique mais pour protéger ñi nga xam nag ñoo di ay alliés am parce que moom imagine toi dafa defoon li nga xam ne moo di grève de faim. coalition Yewwi Askan Wi def délégation dem seeti Sëriñ Mountakha Bachir yàlla na fi yàlla yàggal yàlla na ko yàlla defal jàmm ba muy mhm. intervenir si à chaque fois li nga xam nag moo di situation dëkk bi mhm. bi loolu amee Sëriñ Mountakha ñaan ko jox ko mhm. li nga xam ne nag moo di ay tàndarma yoo xam ne daf ko daf daf si daf si ñaan su ma juumalee mën ko yóbboo ci prison ba quelque temps après. Mhm. dañoo gis ni Ousmane Sonko bàyyi na. ba ñuy waajal màggal. voilà bàyyi na grève de faim bi dafa bàyyi samedi lundi ñu màggal. mag bu naanee ndox mu tàng suukar saa tax. lan la ñu jox Ousmane Sonko ci li nga xam ne nag moo di échange ba mu bàyyi grève de faim bi. Mhm. je pense bien que bu fekkoon am na luñ ko jox ci euh, wàllu loxoom bu mu ko kon tey jii xëy na caabi du ko faytee ginnaaw dina continuer li nga xam ne nag moom mooy activité am ci biti. donc nag mu nekkoon benn mhm. fee boo xam ni wax dëgg yàlla jaaxal na li nga Sénégalais yi bu baax a baax ndax kenn ku ci nekk même ba si bi actuellement lam na nay sàkku mooy la libération de Ousmane Sonko. Mhm. Sénégal amatul kenn kuy manifester conférence de presse amatu fi. donc combat bi dañ ko euh, déplacé yóbbu ko international. tey jii diaspora bi à chaque fois ñu ngi manifesté mhm. démb moo si mujj match Sénégal bi nga xam ne moo amoon ak Cameroun. Euh, mhm. gis nga ci kaw tribune bi lu ñu def di sonkoriser li mooy euh, stade bi. di génnee li nga xam nag mooy ay pan pancarte di wax il faut ñu rek ki nga xam ne mooy di Ousmane Sonko. Mhm. donc usman Sonko fas yéene na duggaat ci grève de fin bi. mu nekk benn décision boo xam ni lenn rek laay ñaan way politiciens yi bu kenn taxaw fii naan. lu muy def dëppwul ak yoon na bàyyi grève de faim bi xam nga bu mu defee grève de faim bëri na ñu taxawoon fii naan bu fi euh, saafaan bu amee moo ko teg boppam il faut nuy waxante dëgg mm. Ousmane Sonko dañ ko jël tëj ko prison ci loo xam ne tey jii ñu si bëri dañuy remettre en question ci nit boo xam ne tey jii waroon na wàcc defi ji li nga xam nag moom la ay moromam di def mm. di collecte li nga xam nag moo di xam ne ñu si bëri ñu ngi koy remettre en ne ko carrément doo bokk ci élection yi nu ko ci lan condamnation définitive amagul ko si Ousmane Sonko mm-hmm. du jaaxal bu baax a baax na nag moom jàpp na ni xupp nañ koy def di ko jaay li nga xam moo di doole donc moom am na droit utiliser tous les moyens pour riposter contre li nga xam ne nag moo di décision yi nga xam ne ñu ngi koy teg ci kawam loolu moo tax mu duggaat ci grève de faim bi pour appuyer aussi femmes yi nga xam ni ñoom ñooy def li nga xam ne moo di grève de faim man de wax dëgg yàlla bi ma gisee nu ni am na femme yu def grève de faim ñooñu ci Pastef nañu bokk. Mhm. njortoon naa ni Ousmane Sonko dina ñëw pour dimbali leen xëy na kàddoom mooy ëpp doole que femmes yi nga xam ne ñoom ñoo entamé grève de faim bi donc nag ñi ci war a intervenir nañu intervenir ca teel teel ba. ndax yaakaar naa femme yi su ma juumalee 9 jours nañu wax xam 8 jours. amul kenn koo xam ne tey jii wax nga ko wala nga dénoncé ko ci plateau yi. wala bu amee néew na. tey ji Ousmane Sonko def na suba nga gis mu nekk li nga xam ne moo di à la une. à la une effectivement. donc nag affaire de médiocrité volongi wala di intimider li nga xam ne nag mooy nit ñi war waruñu ko sentir ci li nga xam moo di mooy li ñu mel. Mm-hmm. fi yooyu noonu ngir ay sénégalaises nanu danoo am njaboot nekk yaakaar ci euh, société bi Falla Fleur. keroog bi ma mm-hmm. gisee. juge bi mu dafay sàkku euh, euh, procureur si dafay sàkku ci juge bi mu daal di koy tëj trois ans ci ñaari kàddu maintien rek. ak gatsa gatsa demande ak interprétation. Mm. mais ñun fan na nu nekk. képp kuy patineur na nga. waaw na nga moytu man mii sax taxaw fii di wax. est-ce que du ma wàcc nu nu nu ma kaay. non Falla Fleur dañ ne euh, mm-hmm. képp képp kuy patineur na nga jóg. loolu la ko mën a interpréter. waaw genre loolu lañ ko wax mais xam nga loolu tey jii nag booy wax ay wax interprétation si ñaari mots dafay xaw jaaxal nit ñi Ousmane ko duggaat na ci. grève de faim ba mu ko defee bëri woon na retombées yi amoon. utiliser nañu voie yëpp pour mu bàyyi ko ba finalement fu nu mujjee si sëñ Mountakha Bachir mhm. suba incha allah gisaat ñu soloon seen daal ñooy solaat seen daal solaat seen ay drap yu rëy lëfër lëfër yi duggaat encore ci kër xalifa diine yi pour mu tegaat li nga xam ne nag moom mooy euh, grève fin bi suuf ñaari xale buy xeex mhm. da leen di àtte ku am toor nga ne ko yaa am toor ku am dëgg nga ne ko yaa am dëgg Ousmane Sonko dafay xeex koo xam ne moo ko ëpp doole mm-hmm. mais moo jël Ousmane Sonko di dina ko euh, jël ñu daal di jël euh, bu dee am na ñaari appel rek ñu daal di wàccee li nga xam ne moom mooy kàddu gi voilà euh, di jaajëfal bu baax a baax loolu nag moo nekk ab information bu yees boo xam ni ne euh, daal dinañ koy jot que ne Ousmane Sonko daal dinay reprendre entamé na li nga xam ni moom mooy grève de la faim li ko waral nag mooy dafay dal di euh, jàppale jigéen ñi nga xam ne euh, jigéenu Pastef yi dañoo daal di entamé woon li nga xam mooy grève de la faim tey nekk seen huit ou neuf jours yoo xam ne ñu ngi ci boobilee grève de la faim te tamit maanaam gisee seen ay mbokk aussi nekk na lu jafe-jafe lool sax ak euh, conditions yi nga xam ni foofu noonu ca camp pénal aussi ñu ngi ko fay dund Ousmane Sonko bëgg leen a euh, ànd ak ñoom jàppale leen ci loolu li waaye tamit. ak li nga xam ni euh, moom mooy jàpp nem aussi tamit bëgg ko na ci li nga xam ne moom mi ngi koy daal di maanaam moo tax mu entamé grève de la faim bi